Assalamu alaikum, samagani. C'est le jeudi 16 mars 2023 pour des ak une actualité nationale lii nga xam ne moo xew ci réewum Sénégal yéen ñëpp gis ngeen ko teg ngeen ci seeni gët ndaxte bii mooy ñaareelu yoon kii nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ñu koy seppi ci otoom di ko yóbbu mani militari ci li nga xam ne ñu koy def am ñu si benn sañ-sañ ndaxte citoyen boo xam ne dañ ko woo pour mu wuy gi police wala mu wuy gi tribunal war nañ koo mën a bàyyi mu dox ak ay tànkam ba yegg fii nga xam ne foofu la mën a jëm waaye gis nañ ne comme defoon nañ ko bële passé mu réussir tey ñu doggaliwaat ko juraat na encore lii nga xam ne moom la ñëpp doon ragal ci réewum Sénégal xam ngeen dama leen yàgg wax ne ñii nga xam ne ñooy waa kër bennoo Bokk Yaakaar chaque fois ak ñii ak presse bii nga xam ne ñoom lañ àndal lañuy wax mooy manifestation yi nga xam ne woote woon nañ ko euh, askan bi wuyu leen wala concert de casserole bi nga xam ne woote woon nañ ko dafa def flop mooy maanaam ñoom si seen bopp wala si seen xel dañoo jàpp ne lii nga xam ne jotoon naa am weeru mars mënatul am ci réewum Sénégal ndaxte jël nañ seen matuwaay wala jël nañ les devant ba ñoom saa su nekk dañuy natt seen bopp ci lii nga xam ne moo xewoon mars ba lépp li nga xam ne def nañ ko bu amul suite wala ampleur rek dañuy jàpp ne loolu échec la wala waa ji dayoo bu mu amoon amatu ko wala daraja bu mu amoon amatu ko te loolu yàgg naa leen wax ne leen dina màtteeg du màtte bul dugal sa loxo dina lakkeem du lakke bul dugal sa loxo tey gisaat nañ ne réewum Sénégal yi ngaa toot na wane war na xar kanam boo xam ne kenn bëggut si ko gis mooy maanaam violence bi ñëwaat na ci mbedd Dakar yeeg ci réew mi fu nekk ñuy taal yi pëna di ay biens yoo xam ne mënoon naa ñàkk loolu yëpp moo ko moo ko waral mooy yaakaar ne daraja bii nga xam ne président Ousmane Sonko askan bi jox nañ ko ko bu wootee askan bi duñ ko wuyu te mooy li nga xam ne moo xewaat tey mooy maanaam lam leen waxoon dina màtteem du màtte bul dugal sa loxo dina lakkeem bul lakki bul dugal sa loxo te saa ñu dugalee yaakaar ne fii ñu duggat seen loxo amatul benn danger danger ñëwaat donc jàngat bii nga xam ne waa coalition benn bokk yaakaar ñu ngi koy def ak ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil njiitu réew mi dañuy juum ndaxte askan kenn du xëccoog moom askan kenn du diranteeg moom mbagg askan kenn du ko jaay doole ndaxte ak loo mënti am ci doole ak loo mënti am ci pouvoir askan moo la koy jox parce que dañoo nekk ci réew moo xam ne askan mooy falaate askan mooy folliwaate waaye boo nee da ngay jàmmarloog sa askan wala kii nga xam ne moom la askan bi bëgg yow nga ne da koy toroxal situation yu mel nii mooy am mooy maanaam Sénégal di dugaat ci fitna boo xam ne mënoon naa ñàkk wala ci fitna boo xam ne ñëpp ñëpp yàgg lañ cee artu wala ñëpp yàgg lañ cee artu addu mais nag bu fekkee ne nag ñom dañoo dëgër bop japp ne jël nañ seen wat way wala jël nañ seen karanga ba dara muntu fi xawat tay gis nga leen wanaat eh, rewum Sénégal wanaat nañ leen ñom ñoom ñu bëggee fipp dañuy fipp te ne li nga xam ne nekkul lu gën nekkul li nga xam ne nit da ci contane wala nit da ciy sara xolle ndaxte sénégalais mooy yàqule ndaxte image réew moy yaqku ndaxte démocratie réew mi torox donc tay li nga ne position bi nga ne benn bokk yaakar ñu ngi ci ñan ci jog pour Sénégal am jam, waye di bëgg di défier tout le temps askan bi du défier tout le temps la force restera la loi wala li fi amon, du fi amaat gis ngeen li fi na fi donc nañu fexe ba jàmm am ci réew mi te pour jàmm am ci réew mi nañu bàyyee citoyen bu nekk ak lii nga xam ne mooy say sañ-sañ nga exercer ko librement loolu kese la amul solution miracle amul leneen li nga xam ne dina ko def lu dul képp koo xam ne yow yoon may na la ay sañ-sañ te foxartiwu ko yoon bàyyi la ak say sañ-sañ que ñuy jël say droit ak say say sañ-sañ di ko di ko salfaañe di di la jéem a toroxal seen xarit la woon Léon Baltasar di leen jox ci ba beneen yoon ñu am fanaanub jàmm ak salaam